Euh, ñu ñëw ci sunu gan yi altine euh, journaux yu tey loolu la ñu xëyee ban euh, jàngat nga ci am bu gàtt wala ban actualité moo la ci gën a frappé. alors man bi ma ciy gën a wax mooy ci mbirum conseil constitutionnel parce que il faut ñoom ñoo xam ne dafa am poids bu lourd bu tegu ci seen kaw ndax ñoom ñooy ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo war a saytu candidat yi war a bokk ak ñi warta te nañ koy saytoo aussi dafa war a doon loo xam ne dafa war a méngoo ak li nga xam ne moom la critères yi wax. Hmm. parce que man mun nañu wax ne plus de deux mois candidat bi mu ngi nekk ci sur le terrain. Hmm. di xool yoon bu muy jaar ba am parrainage. di ko saytu di ci liggéey. Hmm. di ci def lépp li mu war a def pour mën a bokk kooku mbir mi yitteel na ko. kon kooku bu fekkee ne la mu war a def yëpp def na ko ci mbirum parrainage ak dossier ya mu war a àndal. defar ko ba mu baax dem déposer ko kooku waruñu ko mën a téye pour mu bañ a bokk ci ay élection parce que loolu bu boobaa rek dafay méngoog li nga xamante ne bi moom la sénégalais di wax tout temps. parce que gis nañu bële passé 2019. cinq candidats mooy am cinq candidats jàll. man je me dis ki jóg ne dafa bëgg doon président dafa am lu ko mbir mi war a jaral. te ñu bari nag ci loolu la ñu dox man su ma jëlee le cas du ak Cheikh Bamba Dièye lépp loo xamante ne bi war nañ ko def ci mbirum wàllum parrainage saytu nañ ko nañ ko war a saytoo parce que élection présidentielle du ay caaxaan. te Cheikh Bamba Dièye bii du première fois bu muy bokk ci ay élection présidentielle. Hmm. bii mooy ñeenteel bi yoonam muy bokk ci ay président ay élection présidentielle xam nga kon kooku xam na bu baax la mu war a def. Hmm. xam na bu baax naka la ko war a defee. Hmm. te xam na itamit bu baax. ban yoon la war a mën a jaar ba la muy joxe mu doon loo xamante ne dana méngook nañ ko bëggee. cinquième fois. bii mooy bii mooy cinquième fois muy participer. non bii mooy bi yoon. quatrième muy participer ci ay élection xam nga kon kooku kenn du taxaw ne kii warta bokk kon ñu mel noonu aussi peut-être bari nañu ci ñi nga xamante ne mooy candidat yi kon ñoom charge bu luur moo tegu ci seen kaw kon war nañu mën a jël seen temps jël mbir mi parce que Sénégal àdduna ak lu mu mën ci doon. képp koo xam ne rek da ngay àtte mm-hmm. loo fi àtte di ko àtte feneen loo àtte ci àdduna di ko àtte keroog yow mal xiyam te ñoom it dañu doon ay sage yoo xamante ne bi war nañu def war nañu doon exemple ci réew mi ba nga xamante ne bi bu ñu defee ñëpp ne gongo mm-hmm. te nag Sénégal fi mu toll nii dañu dañu yàq valeur yi di ñu dund looloo xamante ne bi nit def ñu gëm ko sax dafa jafe léegi mm-hmm. mais war nañu def exception cette fois yi ñoom muy le conseil constitutionnel parce que bu ñu xasee ba valider wala ñu invalider amatul recours ah. kon ñoom war nañu bàyyi xel bu baax que ni candidat bi bëgg a bokk def li mu war a def yëpp pour bokk nañu fexe ba candidat boobu jàll. dara waru ko teree waru ko teree jàll amul benn influence. Ah. bu war a tegu ñoom ci seen kaw ba ñu jël candidat boobu bañ a valider. sa candidat ak diw dootul bokk. amul du amuñu ci sax droit nag pour dire vrai parce que ñoom fañ leen teg lañ leen fa tegee mooy ñu saytu ndax baax na wala baaxul. kon yow boo saytoo ba xam ni baax na dara waru tere kooku mu jàll loolu mooy dëgg. loolu mooy dëgg te ñoom loolu lañ leen fi tege tegewuñ leen fi leneen kon loolu ñoom nañ ko bàyyi xel te message la boo xam ne dañ leen koy lancé ñoom. nañu xam ne ay sage lañu nañu xam ne ay nit lañu ñoo xam ne dañu am responsabilité ci réew mi. nañu nekk nañu xam ne ñoom ay nit lañu ñoo xam ne seen kàddu dafa am solo seen jëfin. ak seen taxawaay dafa am solo ci réew puisque bu ñu leen tabbee kenn mënu leen jëlee. ci kenn mënu leen fa jëlee. donc ñoom nañu xam responsabilité bu lourd bi tegul ci seen kaw ñuy doxal dëgg di jëfee dëgg tey def loo xamante ne bi bu génnee Sénégalais yi ne gongo parce que mënuñu ne ñi déposé ñëpp dañuy jàll. mais. mais am na ci ñoo xamante ne bii dañu war a jàll parce que la ñu war a def dañ ko def ba mu mat sëkk. non moom koy mbir mi bu jaaree yoon. moom laa lay wax war a jàll dinañ jàll plus que. Mhm. fichier électoral bi lu ci nekk ci ay électeurs. Mhm. cinq millions la ñu wax. Mhm. matul 7 millions 7 7 millions. one on est 17 millions d' habitants. fichier électoral bi am na 7 millions et quelques. 7 millions et poussière. candidats yi def parrainage citoyen. ku ci nekk boo indee li ñu la laaj ci ay parrainage mais apparemment bu jaaree yoon rek rek rek rek ñu bëri duñ jàll. non maanaam maanaam bu dee mbir mi jaar na nañu waxuma bu dee ñëpp mhm. am nañ parrainage yu baax mhm. dama bu dee fichier électoral bi 7 millions et quelque la mhm. yow liñ la laaj ci ay parrainage boo ko indee sa morom indi sa morom indi sa morom indi bu dee jaar na yoon ñu bëri duñ jàll dëgg la comprendre nga fi may wax voilà xam naa bu baax parce que mënuñu mun li ñu daje ci ay parrainage rek déjà benn bokk yaakaar rek nee na am na 4 millions de parrain 4 millions de parrain 4 millions de parrain kon ça que 4 Euh, trois yi ci des trois ak poussière yi ci des mhm. la ñeneen ñu war a séddoo vous comprenez ab voilà xam nga ay ay xam nga tey jii toog di wax ne man am naa lii dafa yomb torop xam nga loolu dafa yomb torop dafa yomb torop torop torop torop mais li may wax man mooy xam nga sénégalais bi tey jii nit bu bëggee bokk ci mbir te li nga bëgg bokk yow nga gëm ne lii dama ci war a bokk war nga yow sa bopp yow mi ci bëgg a bokk jaarale ko ci li nga xamante ne bi mooy yoon mm. ndax tey ji yow bu fekkee da ngay uti parrainage war nga fexe ba ba bul jënd parrainage parce que jënd parrainage bokkul ci li gëm li nga xamante ne gëm-gëm la bokk dangay uti parrainage yi nga xamante ne yow leer na la ne lii yow yaa ko liggéeyal sa bopp. Mhm. mais bu fekkee bëgg a bokk wala naa am nombre de parrainage yi ma soxla nga gis kenn koo xamante ne day jaay nga dem jënd ay parrainage am yow pare pour bokk ci élection. Mhm. parewuloo pour bokk ci élection peut da ngay saboter mais da ngay xool Birahim deux mois moo des. ci deux mois yoo xamante ne bi tey candidat bu ci nekk waroon nga mën a tey di présenter sa programme mais kenn talul présenter programme ndax lan parrainage du ñu ne parrainage baaxul mais mënoon nañ ko munoon nañu def leneen loo xamante ne bi day gën a baaxal nit ñi li ñuy li def parce que élection jaar na fi candidat yi daan bokk du 10 lay doon wala 15 euh, maximum mais xoolal bii yoon ñaata candidat ñoo am. man yaakaar ni parrainage buñ koy def. ñi nga xamante ni bokkoon nañ ci élection yi mujj. ci lay ñëw. ba am tant de parrain. Mhm. ñooñu bu fekkee dañ ne parrainage c'est juste pour xool est-ce que sénégalais woolu wóolu nañ la. Mhm. pour nga bokk. Mhm. ñooñu dañ leen war a teg à côté. ñeneen ñi. mooy ñi am parrainage élu. ñooñu waruñu leen boole ci course course bi. effectivement te loolu nag xam nga que day gën a yéexal sa affaire bi. te xam nga loolu dafa yàqoo depuis le début. bilaay parce que tey ministère de ministre de l'intérieur ministère de l'intérieur tey ñoom. waroon nañu fexe parce que tey ñaata candidat ngay dégg ñuy ne ñoo am mais candidat bi nga xam ne danga bëgg a nekk président amuloo siège. Hmm. defuloo. am na ay préalable yu ñu war benn investiture boo def bu lay mën a teg. nga nekk secrétaire général du parti mais kooku waruñu valider warul am. waroon na am ay préalable donc dafa yàqoo depuis le début. Hmm. donc loolu su amee tey jii yow. nit ki yor récépissé mënul ñëw di déposer nga ne ko doo doon candidat mais bu fekkoon candidat biy déposer day am critère yuy tax yow nga nekk secrétaire général dinañ la laaj ndax mës nga dem élection mais ku mësul dem élection amul siège nekkul secrétaire général daal di ñëw déposer candidature am nga valider ko kon mbir mi ci commencement balaa amee problème donc loolu aussi vraiment dafa nekk loo xam ne problème la yuy nekk ci réew mi hmm. te du fi gaaw a jóge tant que régulariser wuñu li nga xamante ne bi moom mooy dëgg hmm. régulariser wuñu li nga xamante ne bi moom mooy tax sénégalais yi gëm ni lii du ay caaxaan hmm. parce que présidentiel du ay caaxaan d'accord du n'importe comment lañ ci war a duggee d'accord ki ciy dugg day xam li muy dugg lan la mu gëm ko am yërmande ci askan bi xam ne man lii may dem dama ko gëm doyen léegi mu ngi wax ci affaire u Cheikh Bamba Dièye moom analise bi mu def ci Cheikh Bamba loolu sénégalais yëpp def nañ ko parce que kenn dootul wax réew mi te doo tudd Cheikh Bamba Dièye ci jaar-jaaram ci politique ak jaar-jaar bi nga xamante ne jëriñ na ko askanu Sénégal kooku tey bu jógee taxaw ne damaa bëgg a nekk candidat mais kenn waru ko teree doon candidat parce que dina ci buy def parrainage dina ci def fulla dina ci def fayda dina ci def jàmbaarte te dina ko saytu ba mu set wecc ba mu leer nañu ñu dem déposer suñu parrainage ak lépp lu mu war a àndal ba mu jaar yoon kon boobu candidat kenn waru ko téye dafa war a jàll